أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء alayhim salaatu wassalaam mbokk yi ginnaaw bu mu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal suñu yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi ci histoire nuux alayhi salaam tey nekk ñetteelu xaaj ñu ngi woon ci histoire nuux bi ko yàlla yónnee at yim ko yónni mu taxaw xar tànk tubéyam ci woote bi nit ñi daal di lànk ba jamono boo xam ne yàlla tabaraka wa taala digal na ko mu daal di defar gaal yàlla ne ko wasnail fulka bi ayunina defaral gaal ci sama ndigal nuux waxoon nañ ni mu tàmbalee di defar gaal gi mooy day jëmbat ay garab di ko arrosé ba garab yooyu màgg mu daal di koy dagg defar gaal gi waxoon nañ gaal gi ñaata porte la baaduha fawqa baad ñett yu tegaloo waxoon nañ gaal gi melokaanam gaal gi melokaan bi dafa ron mel ne bal ma dafa tëju waxoon nañ gaal gi yaatuwaay bi nii waxoon nañ gaal gi yaatuwaay bi waxoon nañ gaal gi guddaay gi ci asamaan ndax jàpp ngeen ko duma ci jaaraat bi gaal gi pare bi nu tàmbalee defar gaal gi nit ñi biñ ko rombee lan lañ ko doon wax yaa nu sirta na jaaran baada an kunta nabiya e yow nu démb yonent nga woon tey menuisier nga buy defari gaal yaa nu safina ala jabal gaal guy daw ci montagne ay yow nu daal bul ñu jommal gaal xam nga ne du daw ci suuf ñu koy ree mu ne leen bu ngeen ma reetaanee tey bis a ngi ñëw dinaa leen ree bis boobu nag foofu la ñuy tàmbalee tey yàlla joxoon nañu màndarga ay xàmmekaay yoo xamante ne bu ñëwee rek nu na nga xam ne dugg ci gaal gi jot na mooy lan mooy pour bi ngay toggee mburu sa pour bi ngay saafe sa mburu di ko togg di ko lakk bis boo duggee ci pour bi nga gis ndox commencé génn ci safara si rek dawal defal alerte mboolem rabu àll yu nekk ci àdduna nga jël ci ñaar ngeen dugg ci gaal gi ña nga yëg ne àdduna bi day alko benn bis ci màndarga yooyu yàlla joxoon noo nu xëy rek du ubbi boulangerie bi rek mu gis pour bi fi safara si daan génnee mu gis ndox mi commencé ball nu daw dem ca gaal gi mu commencé alerte di dugal rabu àll yi deux par deux deux par deux deux par deux allahu akbar fa tawajjaha fawran ila safina subhanallah xaywaanaatil ard mboolem rabu àll yi dawaabul ard mboolem rab yi daal di ran ci buntu gaal gi xawla safina ñu wër ko tantazirul isna bi duxul ñuy na ñuy xaar nuux jox leen ndigal rek ñu dugg deux par deux mboolem rabu àll yi deux par deux fa rakiba nuux alayhi salaam wa bada yaxmilu haadihi lbahaim mu leen di dugal moom bi mu duggee mu leen di puus benn bu nekk mu koy def mu leen di séparer place yi ku nekk mu koy wax fu muy nekk mu jekki-jekki rek ci biir gaal gi fa isa nuux raa shaykhan fi daaxili safina mu gis benn paa bu màgget ci biir gaal gi nuux lan la gis benn paa bu màgget mu ne ko hee yow góor gu màgget gi la yor ci biir gaal gi man adxalaka fi safina qaala li usiba quluba asxaabik wa takuna qulubahum ma'i wa abdaanuhum ma'aka yu tax nga dugg sama gaal gi mu ne ko pour gaa yi nga àndal ma récupérer seen xol seen yaram yi ànd ak yow seen xol ànd ak man fa arafa annahu iblis shaytaan aduwallah mu xam ne kii iblis la waa ji naan dafa bëgg a récupérer xolu jullit yi ànd ak nuux mu récupérer xol yi su récupérer xol yi nuux yor yaram yi yaram kese kese kese kese lu muy jëriñ saaku ceeb bu amul ceeb am na njëriñ am na njëriñ loolu mooy li am tey nuux dafa récu seytaane dafa récupérer xolu jullit yi xol yi la nangu léegi nag nit yaa ngi nii jëmm yaram yaa ngi nii jëmm mais xol yi amul tawxiid amul aqida mu ne ko génnal sama gaal gi doo fi yéeg mu ne ko génnuma ñoom ñaar ñu xëccoo mu ne ko léegi bàyyi ma ma paas bàyyi ma ma paas mu ne ko lan mooy nekk sa paas mu ne ko dama lay jàngal juróomi mbir juróom mbir laa lay jàngal juróomi mbir laa lay jàngal yàlla daal di wax yu nu ne ko juróom mbir yooyu mu ne la da koy jàngal bul ko déglu na la jàngal ñaar kese bul jël juróom bul jël ñett yi juróomi jël na la wax ñaar rek noo ne ko bëgguma bëgguma juróom yëpp ci biir juróom yi wax ma ci ñaar bëgguma ñett yi des ba ma la ko waxee danga may bàyyi ci gaal gi mu ne ko waaw mu ne ko acca waxal ñaar yi mu ne ko moytul foqale yaaka wal xirs moytul xër moytul xër moytul foqale mu ne ko lu tax mu ne ko loolu laa daanelee yonent yàlla aadama aadama dugg na aajana ñu ne ko lekkal garab yëpp lekkal lépp lu la neex mu daal di foqale ci benn garab ci garab googu laa ko daaneelee mu ne ko ñaareel bi mu ne ko moytul iñaan man mii ci iñaan laa yàqoo ndax damaa iñaane woon aadama ma yàqu moytul ñaar yooyu moytul hirs moytul xasad ah gaal gi daal di départ nuux ne ko léegi mën ngaa toog borom bi tabaraka wa taala mu ñuy nettali bi gaa yi duggee ci gaal gi lan moo xew lan moo am borom bi ne fa fataxna abwaaba samaa'i bi maa'in munhamir fa fataxna man yàlla maa ubbi abwaab asama bunti asamaan abwaab jam'u waxul maa ubbi fa fataxtu baaban de abwaab yàlla nee na asamaan dama ko ubbi ay bunt bi maa in munhamir soo déggee maa munhamir mës ngaa gis géej gu tas di ñëw mës ngeen ko gis géej gu ubbeeku rek di ñëw est-ce que day nekk raakol day sew comme raakol nan lay ñëwee noonu la yàlla ubbee robinet yi asamaan bunt asamaan yi ubbeeku ndox mi di sotteekoo noonu mel ni géej gu tas mu ne wa fajjarna al arda uyuuna suuf si foo xool rek mu nekk ay mbalka yu explosé di génn mel ni tiwa yu toj ndox mi départ commencé génn asamaan di sotti ndox ay waamee ndox suuf si di génne ndox faltaqal ma ala amrin qad qudir ndox mi dem ba laalante ndoxu asamaan ak ndoxu suuf ñu dem ba laalante nii nii nii la ndox yi laalante këj wasdaadal ma wa garaqal mudun dëkk yëpp daal di lab montagne yi lab garab yi lab lépp lab kenn gisatul luy folote ci kaw lu dul ndox lépp a lab lu dul gaalu yonent yàlla nuux alayhi salaam wal qura dëkk yi wa garaqal basar nit ñi lab irtafa alma ndox mi yëkkatiku ba ci kaw montagne yi gën a kaw ci àddina bi ndox mi dem ba foofu ci kaw borom bi tabaraka wa taala bi muy misaal sax ndox moomu mu ne ndox mi dafa yéeg ba laal daanaka fépp fu amoon kekk rek suuf ndox mi muur na ko kenn gisatu lu dul ndox ñépp lab nañ ndeysaan sunu borom mooy borom kàttan te xoolal barki démb yéen a ngi seetaan télé am na benn dëkk bu tudd non Brésil suuf si la yàlla rësal Australie Australie oyster yi ñuy wax am na 500000 morts te ñooñu ndox mi jëlul lépp de ndox mi dafa dem rek ba autouru kër yi daal taxaw nit ñi yéeg ci kaw kër yi ci ardoise yi ci terrasse yi ñu yéeg ci étage yi pour mucc hélicoptère yi moo leen di jël si te am nañ 500000 morts te ñooñu tuuti la leen yàlla ñamal tuuti waa Brésil moom suuf si la yàlla def mu glissé foofu 104 xaw ma 100 lan morts 500 waa dëkk boobu nekk Amérique nit ñi ñuul ñooñu nu mu tuddati Haïti foofu ñaata la. ñooñu yàlla tremblement terre la fa indi suuf si yëngu yooyu yëpp yàlla day wane kàttanam yàlla day wane ne man maay man mi nekkoon yàlla démb ba tey jii maa yàlla li ma mënoon ba léegi maa ngi koy mën duma ko tëli mukk saa yu ma neexee saa yu ma xoolee ne nit ñi féeteerlu nañ rek ma ma indi sama yar caw ba nit ñi xam ne dóor naa ma taxaw di xool inna rabbaka la bil mirsad borom bi di ñu misaal gaal gi bi mu déparé di daw tuufaan bi daal di commencé mu ne gaal gi pour mu wax leen ne ndox mi dafa garaaw mu ne wahiya moom gaal gi tajri bihim fi mawjin kal jibaal gaal gaa ngi daw ak nit ñi ci ay vague géej yu toll ne montagne wahiya tajri bihim fi mawjin kal jibaal gaal gi mi ngi daw ak nit ñi ci ay montagne vague yoo xam ne toll na ne montagne vague ndox mi toll na ne ay montagne rakiba nuh alayhi salaam fa awalu ma bada al ma taxtaha bada tataxarrak ndox mi bi mu wàccee ci gaal gi li gaal gi njëkk a def mooy ndox mi suuf si la njëkk a yëngal gaal gi la njëkk a yëngal ci suuf gaal gi commencé yëngatu yàlla ne noonu acca caabi gaal gi caabi bi pour gaal gi daw caabi jaa ngi nii yéen ñi nekk ci gaal gi yépp irkabu fiha bismillah su ngeen di yéeg ci gaal gi da ngeen yéeg ci turu yàlla irkabu fiha bismillah lan mooy yóbbu gaal gi bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim gis nga bi muy yéeg lan la wax bismillah gis nga de jullit lépp lu muy def rek lu muy wax sooy lekk sooy naan booy tëdd booy dugg jàkk booy dugg duus looy def rek turu yàlla da nga ko war a tudd gis nga noonu bi mu yéegee ci gaal gi dafa tudd turu yàlla gaal gi commencé yëngatu di départ di dem wa jaa amrullahi taala yàlla mu ne ko boo duggee ba ci biir fa iza sawayta anta wa man ma'aka ala alfulk fa qul alhamdulillahi allazi najjana min alqawmi alzalimin boo duggee ba ci biir ba toog moo tax oto booy dugg dangay wax bismillah soo demee ba toog ci fauteuil yi looy wax oto oto sooy dugg da nga naan boo demee ba toog ci saisi nga ni subhana allazi saxara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun ndeysaan abdullah ibnu mubarak borom xam-xam bu mag la woon dafa ànd ak ay taalibeem ci jamono taw julli gee ba pare rek taw bi daal di taw taw bu foor benn taalibe te kenn mënta ñibbi lu dul nga xuus ci ndox mi benn taalibe bi ne ko sëriñ bëgguma nga xuus ndox mi de mu ne ko ah kon nu may def mu ne ko sëriñ dama lay boot taalibe bi daal di sëgg sëriñ bi daal di ñëw teg loxoom ci digg ci ci ginnaaw gi daal ne bismillah subhana allazi saxara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun daal di war taalibe bi taalibe bi boot ko yóbbu kër ga gis nga kooku nu mu doon dundee sunna léegi ñun yaakaar nañ ne loolu booy dugg oto nga ko war a wax sooy war ci dara rek comme sëriñ baa ngi war ci taalibe bi lu moo tax daa koy jàng bu doon kenn fii la bu sëriñ bi nekk bismillah subhaana mu ne ko eh man duma mbaam duma fas mbaam boo koy war wala fas lañ la wax nga wax loolu man duma mbaam duma fas mais sëriñ bi daf ko bëgg xamal ne bëgg a jàngal taalibe bi ne sooy war dara rek da ngaa war a wax ñaan boobu ak lu mu mën a doon gis ngeen nuux alayhi salaam ba mu duggee ci gaal gi ñaan bi la ko yàlla tabaraka wa taala jàngal ne ko soo duggee ba ci biir li njëkk faqul alhamdulillah na nga sant yàlla na nga sant yàlla mi nga xam ne najjaana moonu musal min alqawmi zalimin ci ay nit ñi nga xam ne ay tooñkat lañ ndeysaan nuux continue ñaan bi ne waqul rabbi anzilni manzilan mubarakan wa anta xayrul munzilin mu ne yàlla maa ngi lay ñaan nang ma wàcce ni nga ma dugalee ci jàmm nang ma wàcce noonu ci wàccuwaay bu gën a rafet wàccuwaay bu ànd ak barke ak xéewal wallah subhanahu wa taala waada nuux annahu sa yunji ahla bi nuux yéegee yàlla yégal ko ne man dinaa musal sa mbooleem njaboot dinaa leen musal sa mbooleem njaboot man yàlla dinaa leen musal nuux daal di yéeg fa filan kulli ahli nuux kaanu maahu illa ibnahu hatta zawju li wiir mooy mbooleem njabootu nuux dañoo àndoon ak nuux ba mu des benn soxnaam ak benn doomam nuux ñépp àndoon ak moom ba mu des ba mu des benn soxnaam ak benn doomam ñoo desoon soxna soosu yéeféer la mboolem doom yi nag àndoon ak moom ba mu des benn doom doom boobu bañoon yéeg ci gaal gi nu mu tudd doom boobu bañoon yéeg ci gaal gi doom ji nu mu tudd kanaan la tudd kan kanaan ndeysaan bi ñëpp yégee ba gaal gi commencé départ rek fa badaa yunaadi llahu azza wa jal fa badaa nuux yunaadi llah nuux commencé ñaan yàlla di ko woo wa naada nuuhun rabba fa qaala rabbi inna ibni min ahli wa inna waadaka alxaq wa anta ahkamu alxaakimin ndeysaan noonu ne yàlla sama doom ji bañ a yéeg ci gaal gi ànd ak man ci sama njaboot la bokk de te yow yaa ma wax danga may musalal sama njaboot te yow yàlla li nga wax dëgg la mooy tey gaal gi ku ci yéegul day alku te sama doom ji daa bañ a yéeg loolu la bëgg a wax fa inna waadaka alxaq wa anta ahkam alxakimin gis ngeen yàlla du koo xam ne ci nguuram gii ku jóg def ci lu la neex wala nga wax ci lu la neex nuux lan la yonent la kan moo ko yónni yàlla kon xanaa war naa nekk xaritu yàlla comme yàlla ko tànn yónni ko nuux lan lay ñaan yàlla tey mooy yàlla musalal ko doomam bañ koo rey lan moo tax doom ji daa bañ a yéeg ci gaal gi doom ji daa bañ a yéeg te yàlla nee na gaal gi ku ci yéegul da ngay alku da ngay dee ndox mi dalay rey nu di woo ñaa di woo yàlla naan ko sama doom ci sama njaboot la bokk te yow yàlla li nga wax mooy li am ay waay yàlla xam ngeen lu ko yàlla tontu ndeysaan subhanahu wa taala nu bi mu ñaanee yàlla ne ko musalal sama doom yàlla tabaraka wa taala daal di koy tontu doom ji fan la nekkoon ba nuux ñaan yàlla tabaraka wa taala ne ko sama doom ji ci man la bokk te yow yàlla xam naa ne li nga wax day am ndeysaan wa naada nuuhun ibna nuux daal di woo doom ji wa kaana fi mazalin doom jaa ngi woon ak nuux benn distance bu sori ci benn montagne bu mag nuux taxaw fii di seen doom ji mu daal di koy woo mu ne ko yaa bunayya e yow sama ndoom sama ndoom irkab maana yéegal gaal gi ànd ak ñun wala takun ma al kafirin bul dem ci yéeféer yi bul bokk ak ñoom parce que dañuy alku tey irkab maana moo tax doom bu bañ a déggal sa baay xale bu dëgër bopp sa papa ne la lii la nga ni du loolu di xëccoog moom di xëccoog sa yaay da ngay alku rek da ngay torox rek doomu nuux a ngi nii nuux ne ko yéegal ci gaal gi lan la wax saawi ila jabalin yaasimuni min al ma eh père eh père eh père bon damay yëg ci montagne bi quoi montagne bi moo may aar waaw et pas waaye xoolal bàyyi ma ma kuul quoi ma yëg ci montagne bi gis nga gis nga loolu la xale yi di def léegi noonu la ñuy waxee ak seen papa yi et père et mère et madara et padara yooyu la ñuy wax seen papa yi wala nga ñëw ne ay pap ay yaay non ay ay ay père lan mooy père eh pa yooyu la ñuy wax lan mooy pa loolu la ñu wax doom ci yéegal ndeysaan wala takun ma al kafirin bul ànd ak yéeféer yi lan la doom ji wax qaala saawi ila jabalin yaasimuni min alma dinaa dem ci montagne xeer bale ma yéeg ci dina ma musal ci ndox mi ndeysaan fa qaala rabbi inna ibni min ahli wa inna waadaka alxaq ndeysaan qaala la asima alyawma nuh ne tey kenn du mucc min amrillahi illa man rahim nu ne doom tey kenn du mën a rëcc lu dul ku yàlla yërëm bul dem bul yéeg ci montagne bi yéegal ci gaal gi tey kenn du mucc foofu nuux di wax ak doom ji rek wa xaala baynahuma al mawj fa kaana min al mugraqin benn vague la yàlla yónni ngandi maami vague xam ngeen vague vaggu ndox mu daal di jaar diggante nuux ak montagne bi daal di yëkkati doom ji ba ci kaw ne ku nullu ci biir ndox mi doom ji daal di lab daal di dee te xoola nuux yonent la de mu taxaw direct di xool en direct yàlla di duma doomam kon ku fi yaakaar waxuma la waxuma la yonent de ay sëriñ ak ay waliyoog ay muqaddam ak ay cheikh ak ay peer ak ay meer ak yépp a yem ci kanamu yàlla ku yeba rek yaakaar yàlla yàlla rek yonent a ngi nii ab yonent taxaw ci kanamu yàlla di ñaan yàlla naan ko inna ibni min ahli sama doom ci man la bokk te wa inna waadaka al xaq yàlla li nga wax dëgg la te sama doom ci man la bokk ndeysaan fa naada nuuhun rabba nuux bi mu gisee loolu rek ne doom ji dem na ndox maa ngi koy yóbbu doom jaa ngi ne la ndox mi di yóbbu ndox mu ngi taxaw ci gaal gi di gis rek mu daal di woo yàlla di sant lan la wax yàlla mu ne inna ibni min ahli yàlla ah yow yàlla sama doom ji ci man la bokk de te yow yaa ma waxoon ne di nga assuré sama famille te yow yàlla li nga wax dëgg la xam naa ko wa qaala yaa nuux innahu laysa min ahli yàlla ne ko kii bokkul ci sa waa kër kaafir yéeféer la al kufru yanqatiu l ansaab kéeféer day dagg day dagg day dagg diggante sa papa julit la yow doo julit yow yéeféer nga sa papa du- julatu la loolu mooy islaam ci ñun ci islaam al kaafir laa yarisul muslim yéeféer du doon julit moo tax ku bàyyi ku bàyyi islaam rek nekkatoo jullit ku bàyyi julli yéeféer nga gis nga doomu nuux nuux moo ko jur de nuux yaakaaroon na ne sama doom ji maa ko jur yàlla ne ko juróo ko ku yéeféer la bokkatu leen dara léegi ndeysaan innahu laysa min ahlik bokkatul ci yow bul ko ci boole bokkatu ci innahu amalun gayru saalih moom baaxul fala tasalni ma laysa laka bihi ilmu xala xam nga yàlla lu mu ci tegal noonu attention yow noonu bul ñaan yàlla de bul laaj bul wax lu sa yoon nekkul inni aizuka yow nuux maa ngi lay avertir maa ngi lay mettre en garde maa ngi lay moytandikuloo an takuna min al jahilin balaa ngay bokk ci ceddo yu réer yi gis ngeen moo tax boo jaamul yàlla su la yàlla di duma sa papa munu ci dara sa yaay munu ci dara kenn munu ci dara ku jaamul yàlla yàlla di ko dumu kenn munu ci dërëm ku yebal ak jaamu yàlla xam nga affaire bi nu mu mel ku xam affaire bi nu mu mel mi ngi mel ne boolub ceeb bu ñu teg bu ñu tegoon léegi reer bi ñu ne kaay leen reer est-ce que da nga naan eh eh eh noo tudd yow papa noo tudd yow Abdourahman da nga naan Abdourahman papa da nga naan Abdourahman lekkaaleel ma sama wàll est-ce que Abdourahman bu lekkee yow papa da ngay suur doo suur lekk na sa wàll ñëwul ci yow nga suur li mu doon lekk deful nii yow mu mu envoyé la ko crédit mu lekk ba pare mu envoyé la ko sa biir bi nga suur da ngay suur yow da ngay suur kii bu reeree sa reer da ngay suur yow da ngay suur yow nag doo suur de kii bu lekkee sa reer ba mu jeex yow da ngay suur doo suur doo suur ndax sa biir bi dara du ci dugg doo suur de noonu la noonu boo waree nelaw nag nga ne ko nelawal ma sama wàll waaye man ma toog fi tey du ma nelaw nelawal ma sama wàll est-ce que day tax doo nelaw di nga nelaw de moom nelaw na sa wàll wante yow di nga nelaw lu tax kii nelaw na sa wàll lu tax ngay nelaw gis nga loolu kenn mënu ko defal kenn nelaw kenn mënu ko defal kenn lekk kenn mënu ko lekkal kenn e lekkaaleel ma naanal ma jaamu yàlla tamit noonu la e julliwaaleel ma mënul nekk e wooral ma e jàngal ma alxuraan mënul nekk yow rek noonu la jaamu yàlla mel soo jaamu yàlla nag boo dee nga dugg àjjana boo jaamu yàlla sa papa bu julli woon ba suba muy jaamu yàlla sa yaay di jaamu yàlla yow jaamuwoo doo ci bokk yowmal xiyaam yàlla da leen di tàqale ni mu tàqalee tey diggante diggante ni mu tàqalee tey diggante nuux ak doomam yàlla tàqale na leen doom ji alku na bàyyi ji continuer di dund mbokk yi yàlla ba pare di moytandiku loo nuux naan ko yow nuux na nga moytandiku kii doom ji bokku leen dara moytul bokk ci jaahil yi qaala rabbi inni ustu bika inni auzu bika an asalaka ma laysa lii bihi ilmun yàlla maa ngi muslu ci yow maa ngi làqatu ci yow maa ngi lay jégglu nang ma jéggal dootuma la laaj loo xam ne aw ma ci xam-xam sama yoon nekk ci illaa taxfir lii wa tarhamni akun min alxaasirin ay yàlla boo ma baalul boo ma yërëmul danaa bokk ci ñi perte xoolal nuux fu mujj léegi talatul doom ji léegi nuux lu mu tal boppam pour loolu yàlla mu wax yàlla ba yàlla wax ko moytandikul yàlla avertir ko léegi nuux talatul talatul doom ji kan la tal boppam moo tax mu naan yàlla jéggal ma yërëm ma yàlla boo ma yërëmul dinaa bokk ci ñi perte nuuhun ma asallah nuuh musta mooy yàlla nuuh amul bàkkaar musul mooy yàlla wa saarat safina bihim gi gaal gi daal di continuer ànd ak ñoom di daw mbokk yi ndax xam ngeen gaal gi ñaata fan ñaata semaine ñaata weer ñaata at la nekk ak ñoom ci biir ndox moomu ñuy daw ci àddina bi xam ngeen ko juróom benn weer ñu nekk ci biir gaal gi gaal gi daw juróom benn weer ci biir ndox ba ñu dem ba benn place bu tudd juudi ci benn montagne gaal gi daal di fay gaare bi mu amee juróom benn weer ibnu abbas nee na gaal gi nekk na di daw ak ñoom juróom benn weer sittata ashhur annahum nazalu minha fi yawmi ashura biñ demee ba gaal gi teer ci place boobu tudd juudi ci benn montagne ci bisu tam xarit la woon moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon woor tam xarit tam xarit mbir yu bëri xew na ci ci la yàlla labal firawna sëvi Muusa ci la gaalu nuux gi teeree ci place boobu tudd juudi ci la yàlla musale ibrahima ci safara si moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee Medina mu ko doon woor radiyallahu anhu mbokk yi bi gaal gi teeree ci place boobu ci bisu ashura wantaxat tuufaan ndox mi daal di commencé jeex di wàcc nuux nan la def ba xam ne ndox mi mi ngi wàcc saa yu xëyoon suba am na benn pittax bu mu doon yónni pittax xam ngeen pittax pittax bi tànk yi dafa xonq arab yaa ngi koy tuddee xamaamatu salaama mooy pittaxu jàmm pittax boobu ci jàkka yi rek lay dëkk su ngeen demee Màkka moo fa nekk su ngeen demee Médine moo fa nekk bët yi dafa am lu xonq tànk yi xonq xam ngeen lan moo xonqaloon tànk yi ak bët yi ak beg bi pitax bi bi ko nuux njëkkee yónni ne ko demal nga xool ndax ndox mi jeex na dafa wër àddina bi yëpp gisul gisul gisul gisul suuf mu daal di delluwaat nuux toogaat weer yónniwaat waaye bii paa bi mu ñëwee moom pitax bi dafa indaale benn branche banqaas benn branche garabu raisin tànk yaa ngi taq ban bu xonq ban boobu moo wow ci tànk yi tànk yi daal di xonq yàlla daal di ko koy fay mu nekk fuddën bu xonq tànk yi daal di xonq ak bég bi moo tax pitax boobu ci ay jàkka rek lay dëkk foo gis jàkka sooroor bi ci kaw pitax bi fa lay nekk ndeysaan loolu la ko yàlla fay non bu leen xool suñu jàkk bi amagul sooroor bi gaal gi teeree ci ban bis la gaal gi teer bisu tamxarit ci benn montagne borom bi tabaraka wa taala mu ne wa qila ya ard abli'i ma'aki wa ya sama aqli'i wa ghida al ma wa qudiya al amr wastawat alal juudi gis nga gaal gi foofu la teer ci juudi yàlla mu ne yow suuf wannaatal sa ndox e yow asamaan arrêteel bu ndox wàcceti yàlla mu ne waxiidal ma ndox mi daal di ñeer daal di jeex tak suuf si wow wa qudiyal amr yàlla mu ne mbir mi dogal nañ ko exécuté nañ ko gaal gi teer na wastawat alal juudi wa qiila bu'dan li qawmi zalimin yàlla mu ne ñépp ñi ma doon mooy ñépp ñi ma jaamul woon yàlla na leen yàlla soril yërmande ñépp daal di alko daal di faatu wa jaa nidaa li nuux yàlla daal di woo nuux wa qiila yaa nuux ihbit bi salaamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman maaka wa umamum sanumatti'uhum summa yamassuhum minna adabun alim nuux bi gaal gi teeree ba pare ubbiwul de démb bi gaal gi di daw ci ban ci ndigalu kan la ko yàlla waxoon na gaal gi daw ci ndigalu kan ci ndigalam moom nu wala gaal gi doon daw ci ndigalu yàlla bismillahi majreha bi gaal gi teere lan la ko yàlla wax yaa nuux ihbit bi salaamin minna nuux wàccal ci jàmm jàmm boo xam ne ci man la jóge nuux daal di ubbi portugal gi rab yi commencé génn di tasaaroo nuux daal di wàcc moo tax nuux mooy ñaareelu aadama ñi judduwaat nii ñëpp ci kaw suuf nuux mooy seen baay nuux moo leen jur ndax njaboot googu nuux yóbboon ñoom ñoo ngi ñëw mucc ñeneen beneen monde bi yëpp dañoo dee te nuux waxoon na ñaata nit la yóbbaale ci gaal gi nuux ñaata nit la yóbbaale ci gaal gi juróom-ñeenti nit juróom-ñetti góor ak benn jigéen ñooñ ñoo rek ñooñ ñoo gëmoon noox ñooñ la noox yóbbaale ñeneen ñëpp dañoo alku borom bi mu ne walaqad naadaana nuuhun fala ni'mal mujibuun wa najaynaahu wa ahlahu min alkarbi alazim wa jaalnaa zurriyatahu humul baaqin gis nga aay baa ngi new yàlla nee na nuux woo na ma man yàlla ma daal di koy wuyu man yàlla ma musal ko moog waa këram ci mbënnum ndox ci alkane ndox mi nga xam ne moo doon alak ay nitam waaye man yàlla def naa njabootam ñooy ñi fi des ñooy ñi mucc wa jaalnaahum wa jaalnaa zurriyatahu humul baaqin yàlla nee na njabootu nuux ñoom ñoo fi des kaana li nuux salaasata awlaad nuux amoon na ñetti doom saam ak kan salaasa awlaad ñetti doom saam la ak kanaan ak ak haam ak yaafas ginnaaw ba kanaan faatoo mu des saam ak haam ak yaafas boroom xam-xam yi nee nañ saam mooy jur araab yi ku ci des ku ci des yaafas moo jur ñu weex ñeeg ñeneen ñi indo yi kan moo ci des non kanaan dee woon na ndox mi alagoon na ko bokk ci hëm haam moo jur africain yi noonu la àddina tasee moo tax yàlla mu ne wa jaalna zurriyatahu humul baqin histoire nuuxa ngoog kaana nuux yasumu dahr illa fi l ayaad nuux dafa doon war adduna bi yëpp lu dul ci feet yi feet yi nga xam ne yàlla da ko tere yu mel ne koriteeg ay yooyu noonu yooyu rek la nuux du dul woor mu ne 31 31 kay bokkul ci feet yi nuux da daan woor dëkk illa fi l ayaad wa maata nuux alayhi salaam wa dufina fi arjahi riwayat fi makka ñu ne nuux bi mu faatoo li gën a wér ci ay riwaaya mooy makka lañ ko suul moom nuux wa baadu riwayat tufsiru ila annahu dufina fi fi turki ba yeneen riwaaya dañ ne turki lañ ko suul moom nuux yenn yi ne màkk yenn yi ne lubnaan mais li bi gën a wér moom nga xam ne moom la borom xam-xam yi ëpp wax nee nañ nuux bi mu maatoo bi mu faatoo màkk lañ ko suul incha allah mbokk yi xissa bii di ñëw buñ fi yàlla bàyyee ñoo ngi dugg ci xissatu xuut alayhi salaatu wasalaam yan la ñu yàlla may fekke asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu